Hey, that I teranga sargal naa la jëlal jëlal di foobal nangul teranga gi yaa ko moom sargal leen man de sargal naa la moom wax nag mu ne a ah, mu jàpp en les am mel na ku nekk seen kër. Eh, boo waxee man noq la laa wax maay ah, wax. booy wax ma lay ñuus laa la wax yow. Ah. booy wax ma lay noq. yow bàyyil kii ak rugi dayam bi. duul xam lu jéppee waa. Eh, waaye nga am lu ko sama yow yaa réew démb yaa ngi yow ci kër gi. ah moo wax la li ma lay wax yemale la sa place pour man dootoo fi ñëwati tey nga ñëw war laaj leen da laa lay xamal. dul tuut te bëriwul gis nga kii xool ko xool ko xool ko. xool ko waaw gis naa ko. booy boo nga génn ci sama xel ndax di nga ko yemaleeg sa ceeb bi dëj doo ci am dara kii sama jabar la. Oh, yooyu dafa xew sa sim. lan moo xew yow kii kii mën la bëgg. boo man ne yow yow yow yow yow yow ngay feej. yow ngay tapé waaw man bébé kañ dem. waaye jéewul bébé da nga koo jur fu ngeen jëm. yow sàcc nga sàcc katu nit la sàcc la sàcc sàcc la sàcc la sàcc. sargal man de sargal man da sargal naa la jalal jalal ni foobal nangul teranga gi yaa ko sargal leen man da sargal naa ma ni bës ci bës yi bis bi na bis yaa ko moom ma jonga ma daagul ah, yow mën ngaa ma génnee rek nga dugg sama nit dafa am lu lu ma tegoon fii nii moom laa doon seet de dama ko fekk fii rek doon pour ngaa wax ne rek junni bi ma teg ñaari junni bi ma teg nga sama daal du yow daal lu ma teg ci nekk bi da nga ma rek yàgg nga maa a loolu laa bëgg a xam lu tax ak yow. loolu ma jaaxal xaw ma lan la su may jël sax duma ko tey baal ma. sutural ma rek ta yalla tax comme niñ ko doon defé yàgg nga ma sutural ñoo bokku ndey ak bay dimbali ma rek ta yalla tax yo bo xamal ne ñoo bokk ndey ak bay ma doon sa top ci ginaaw lo soxlu suba ba ngor nga war ma kaa laaj way dang koy fay suñu askan bi ya ci gën a yees yow ya man xawma sax li ma la war a ci sargal man de sargal baax na. foo jëm ni xanaa marché yoo xam ne gisoo sama daal yi. naka sama daal yi benn melo la fu ma jëm moom laa yóbbaale. ah naa ko changé tey. loolu de moom lu salaam maaleykum ma ne Aliou bëgg ah. ah. yow li nga yor rafet na de ak seen. salaamaaleykum. yaa def ni daal. Eh. kii moom waaye kii Monica. Monica ca mbokkoon ci film film Rus Karika. Monica amul. Ah, def. yéen a nga ca. xool leen baax na dëgër na. Ah. ku ma ñeme de dootoo ko rëcc. Oh, ah, sama taay la. sa taay la de. parce que laa xamul ba xam ba xam ne mu kii nit Angers. ah nii ah. baax te yomb. xool ma bii lii ci tàngoor. yéen dafay fay. bu ne ensemble la. waaye jànk xoolal bii. ah yow rouge bobu rafet na de. ku bëgg bi ah vert man la jonne naa nga ni sama taay la. ci ensemble la mi ngi sam yi ah, ma bax ci yi ku bëgg sa la. jàppal jongo ma mana lo waxati. jek may ma ma def jongo ma na daal. nag moom la ko talal. téel jàppal rafet de xanaa amul yére ensemble la xool wëral moom bi wër la ilaha illallah damaa tàng man daal daa ñaar yi baax na ñaata la ñaar yi baax ci yow mhm. bii ak bii calculé ko Samba comme ni ma ko waxee rek seet sax yàgg may duma la ci aussi parce que peut-être fi nga la comprendre la baax a baax te woote bi lenn waral na ko du sa diggante ak femme yi ndax nag olof dane euh, ba ak làmmiñ ñoo dëkk waaye charge bi dañuy laale may taxul kenn mën ca dem bàyyi morom ndax nag damaa gis seen relation mu neex loolu ma dooree na sax am copain bu ne yow su may am couple yaa nga mel ni seen couple te loolu laa gis seen diggante seen ànd bi yàgg na te macha allah rafet na donc lii nii dama ne lu fi jaar lu fi waroon jaar dong la jaar na fi ndax nag euh, li olof naan làmmiñ ak bëñ ñoo dëkk mais des fois sax dañuy laale. ñaar ñaar ensemble la robb. waaw waaw léegi xam léegi xam nga li ensemble la. waaw da ngay juróom-ñetti téeméer. bi di nag mën naa la ko wàññee dafa ko ñeenti téeméer waaw mu junni ak ñaar téeméer. Ah. fayal jur du la. te doo ko wàññi. wàññi rek bu la waxaale. Ah. <laughs> ku rafet da waxaale. yow Monica. Mhm. ensemble. ñaari ensemble mhm. yow moom da ngay joxe huit huit mille junne juróom benn téeméer ma def ko xéewal bul waxal eh, wàññi ko ah man six mille moom sept mille yéen fekk leen ba seen kër te lii fu ngeen ko sol lu ngeen ko gisal feneen ba ma fekk la d'accord naa sax waaye léegi nu muy demee xanaa daal di may fay mën a coow wuti waat su ma amee indiwaat dëkk bi kat fay dañ koy bëccëg par <laughs> ah. ndànk-ndànk. waaw oh. sax juróomi dërëm la. maa la wax loolu. Ah. bëccëg juróom rek. soo mënee chaque jour boo dikkee jox la juróom nga dër ñu ko. juróom juróomi juróom vingt cinq franc. juróomi dërëm. waaw. bëggoo. waaw waaw te xaar xaar xaar ñu wax yow it bul gaaw a delloo. Ah, dama lay wax boo bëggulee nga jox te doo ko bëccëg. bëccëg. waaw. mënoo ko. ah waaw am te jox wàll yow it dañu juboo. bëccëg juróomi dërëm maanaam. ñaata fan laay fayeeku si ñaata fan. Ah, est-ce que mën na diire at di. cinq ma bariwul. at daal dina ko diire at ah. weer lay diire ak xaaj loolu yàggul. juróom nga naan at bëccëg juróom nu mu yombee ah yow tamit. juróom juróom bari na juróom bariwul ci yéen. yéen ñaar lépp romte ne lu nekk seen xol ñagas ñagas ngeen ko carte sur table ngeen ko et vous passez à autre chose bi. ngi rafetlu sa baax baax. mais dafa fekk ne relation boo xamante ne chaque jour fitna chaque jour fitna jëmul kër nañu def moom mu seeti leneen man ma seeti leneen parce que relation boo xamante ne dañ la sam sëram mayu ma jàmm maa ngi moom ñu ngi dund nice mais sëram mayu ma jàmm te damay dajeeg moom ci buntu kër gi sax wala ci mbedd yi mu may saaga te xam nga yooyu yëpp rafetul te fan yii rek doxantu naa dem sama kër nijaay ba ñu mayoon fa soxna soxna waaw yow yaa may war ne yow yow yaay jaam ak fi ma jaar ak yow fi nañ ma guddi dóor ma bëccëg naa la bàyyi ma jàpp la te yàlla tax yaay dem bay takk jabar di ma bàyyi fii yow ak fi ñu jaar yëpp yow yaay jaam def ma ko def ma nag pour ay war ak yooyu noonu mais dama ko def juste pour nga ne sa jàmm wala ak ma nit ma ne sama jàmm loolu rek a tax loolu rek laa jubloon mais du question damay wor wala yooyu noonu wallaahi. maa ngi jégalu nag bu baax a baax man maa ngi ñëw dem merci beaucoup. jaam mën a def lii jaam bi nga doon. man de bés bee laa def ba ne ma ma soxla laa ma góor ñi nii rek la ñuy def boo leen joxee sa xol ñu fowee la dem wuti leneen. waaye lépp nag ki ma nekk si kër gi. sëriñ xaadim borom tawféex borom xam-xam bu leer baa ngi nii borom fasaaxa bi ki àdduna gi yépp yittewoo. def bu ñëpp gis ci wàll yokku awra mu am ci ay résultats.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 54 05 77 490 54 05 mbokk bu ko laajteeti kii mooy Serigne Khadim borom tawféex